ويذكر المرصوص بعد مبتدا aw xabar asmin laysa yabdo abada nee na gannaaw necma ki bis gannaaw bu rafaaxee faacilam ba yegal yudkaru dañuy tudd almaxsuusu ka ñu jagle tagg wa ci boppam ndax bi nga tuddee faacilam bu fekkee lu yor alif ak laam la ni ki necmal rajulu kooku ali jins la yow xeetu góor ñëpp nga tagg ki nga ko jagle ci biir góor ñi nag mooy zaydun li tax tagg bi foora nag soo ne ni'mal rajulu zaydun tagg nga ko ñaari yoon ndax bi nga ko taggee ci tagg xeetu góor bokk na ca nga dellu ni nag nga jagle ko ko nag tuddaat ko ni moom nag mooma ni'mal rajulu huwa zaydun loolu mooy taqdir ni góor a baax moo di diw su ko defee ñu tudd almaxsuusu ki ñu jagle tagg wa ni ki zayd moom baadu gannaaw ba nga rafaa faayil ba yeggal mu nekk lan ci lu muy placé ci li'raab mubtadaan bu la neexee nga ni mubtada la maxduuful xabar ju ñu dagg xadafa mel ni da nga ni zaydun almamduuxu nga nga nga dindi xabar ja aw xabaras min mbaa mu doon xabaru lisim xabaru mubtada moo xam ni laysa yabdoo du feeñ moom mubtada moom abadan faw ni ki boo nattalee ni huwa zaydun nga dindi huwa jooju du du dikk mukk moomu kon kenn du leen boole moom bu fekkee mubtada nga ko def xabaram dañ koy xadaf su fekkee xabar nga ko defit mubtadaam dañu koy xadaf laysa yabdoo abadan wa in yuqaddam mushcirum bihi kafa kal ilma nimal muqtana wal muqtafa al ilma nag danga ko war a nasab ndax mu doon maamoolu beneen feel bokk ci jeneen jumla bañ a bokk ci wax ji bu boobaa boo nee nimal muqtana wal muqtafa ñu xam ni maxsuus mi de tudduñu ko ndax li ñu tuddoon ci jumla ji passé moo ko xamle amaa soo ko rafaayee muy mubtada nga ni al ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa dana mën na nekk waaye bu boobaa dootu doon fu ñu xadafe maxsuus ñu ni dañ koo xadaf ndax xam gi ñu ko xama tax ñu do déet kon do kon kay min taqdimil maxsuus la waaye kon dootu fu ñu ko xadafe looloo tax nu tànn njànginu al ilma ay utlub iqtafi toppal al ilma ni'ma baax na al muqtafa lu ñu toppal mu nekk mafoolu fi'l bi way yuqaddam bu ñu dawalee mushirum bihi lu mën a xamle maxsuus ma kon kafaa mu doy walis ñu deeti ko tudd ni ki nga ni al ilma ay iqtafi toppal al ilma mbaa utlubil ilma daal ni nag ni'ma baax na al muqtafa lu ñuy topp la mooy xam-xam al muqtana lu ñuy wut la di ko dajale wal muqtafa ak la ñuy topp waj'al kabisa kabisa saa waj'al faula min di thalathatin ka nicma musjala waj'al defal saa ka bisa saa saa ma kaanu yaxkumoon nga ni saa rajulu zaydun comme ni nga naane waaye nag bisa lay yamal ci maana nga ni saa rajulu zaydun maana bisa rajulu zaydun saa nag boo dana nu ko booleeg ay moroomam bu juddee wax ni faula bi dammi la was noom moo taala ji firi gudd na ñooyam tawu la dégg nga fa huwa tawilun saa fa huwa sayyi'un wajal defal faula bi dam min di salaasatin mu bokk ci borom mu ñu tëggee ci borom ñetti xaraf feelu sulaas yi def ko ka ni'ma mu mel ni ki ni'ma ci ni ngay jëfandikoo ni'ma ba nga ko defalee dégg nga faayilu zaahir na nga naa ne ni'ma rajulu zaydun man nga andi beneen feelu sulaasi yi boo xam ne day tegtale tagg nga bëgg koo def na ni'ma wala muy tegtale ŋàññ nga bëgg koo def na biisa dégg nga ni ki bu la neexee ni karuma rajulu zaydun kooku karuma naka jekk fi'lu amam bi ñu jubluwul tagit fa'ula la doon doon kon soo ko defee fa'ula bul defee ni fa'ula ju jëkk dàmm gu jëkk ga ma ngi mel ni fa'ula ju bees nga indi ju bokkut ak ma ngi mel ni karuma ju bees nga tudd ju bokkut ak karuma ju jëkk li ndax bu jëkk ba amul yi amul tagg te tagg maanaam yéeme ca ne moo tax muy am tamyiz kon karuma zaydun bu fekkee jubluwoo ci tagg foofu nga yem soo ci jubloo maanaa tagg ni ngay tagge ci ne ma nga ni karuma zaydun rajulan ci waay wala nga ni karuma rajulu zaydun ni ngay waxe bi sa rajulan wala bi sa rajulu zaydun li lay xamal ni faula ju jofane su fekkoon da nga doon bëgg koo tagg ci mën a dóor da nga naan daruba rajulu zaydun wala fahuma rajulu zaydun te bu fekkoon ni du feelu matx boobu kon fahima bil kasri nga nee naa la niamaak bi sax bu ñu dee mën a am tamyiz dañoo jege taajub lool ndaxte yaa ngi yéem ci baaxu zayd niama rajulu zayd moo tax saa ma kaanu yaxmalun wajal faula min di thalathatin kanima musjalan mutlaqan su fekkoon faula bi dammi la nga indi faula boo xam ne bu bees la faala bil fatti mbaa faila bil kasi lu mu ci mën a doon wa mithlu nicma xabaza alfailu da wa in turid zamman fa qul laa xabaza nee na wa xabaza ba mu àndee ba nga ciy tagg ba di ci boole daa ji muy baat sulaati yu bu ñu xam xaje xare ci baatu mahabba moom it faula bil kasri la di ma maanaa faula bi dammi ban doon wax di dafa mel ni xabuba nga wax waaye nag li tax li ko wutaleeg karumaak darubaak fahuma moom mën nga indi za muy faailam nga jokk ko ca nga ne xabaza mu ni su ko defee bu maanaa nicma al faail ja nag moo di za jooju nga ci jokk ci xattu day mooy faailam asluhu xabuba xababa za maanaam ak a baax kii fekkit dañ cee xam ne nag bëgg nga ko ndax maxabba ji mu jóge loolu la gañee neema neema dañ cee xame tagg waaye ndaxte sopp nga ko nag wala soppoo ko loolu ndax tagg nit taxul sopp ko waaw ki nga xam ne wax dëgg rek moo ne ci moom mën na tagg koo xam ne taxul mu sopp ko alfailu za wa in turid zaman soo bëggee ŋàññi ci baat boobu nag au lieu ngay indi beneen mu diddam déedéet da ngay indi xarfu salb nga ni laa xabaza su ko defee laa xabaza murakkab la moo xam ne ma ngi mel na ku ni biisa rek wa in turid alaa xabaza aadiri fi lxawa wala xabaza jaahilul aadilu laa xabaza mooy biisa xabaza mooy nicma ànd ak fii day wane ni bëgg nga ko fee day wane ni bëgguloo ko wa in turid zamman fa qul waxal ni laa xabaza zaydun gayra annahu ida dukirat mayun falaa xabaza maya maya maya de wala ala habaza hiya naam damir ba dama doon wax man ida zukir gayra annahu ida zukirat mayun fala habaza maya wala wala habaza hiya mu daal ne na kon wa awlida almaxsuusa ayan kaana laa tacdil bida fa huwa yutaahi almathala wa awli tofalal sësaleel za faayilu xaba jooju ñu wax za sasale ko almaxsuus ku ñu jagle tagg wa nga ne xaba za zaydun dégg nga ayyan kaana bu mu mën a doon su dee tasniyakat nil xaba za rajulaani xaba za zaydaani su dee mbooloo xaba za zaydoona bu mu tax nga jéem a soppi za ji ni nga ko booleeg xaba za xam nga ismul ishaara la waaye nag te ismul ishaara ju kennam ju mbooloom dadul bokk waaye kii kat moom moom jóge na ca loola xabaza alhindaatu ni ngay waxee xabaza zaydu noonu nga naan xabaza alhindaatu te faayil ji mooy mooy zaa ji mooy faayil li nga indi gannaawam muy waaxid muy muzakkar muy muannas mu ne laa taadil bi zaa bul jeng ci baatu zaa di ko jéem a soppi pour kii jigéen la mbaa mbooloo la ndax fa huwa moom kat yu daahi dafa niroog al masala masal masal ci waxi arab kenn du ko soppi ndax ci xeetu listiaara la kalaamun murakkabun dégg nga shubbiha madribuhu bi mawridihi kooku mooy masal ka qawlihim alsayfa dayacti labana yuqaalu bi kasri taai li kulli muxaatabin walaw jamaacatan muannasin danga naan dayacti du tax nga ne dayactunna soo koy wax ak góor dayacti du tax nga ne dayacta ndax wax ju ñu àbb la te ko àbb mbubbu jàmbur doo ko soppi noonu nga koy bàyyi maanaam fi ñu ko madribam fa ñu ko mawridam fa mu dikke woon jigéen ju ñu doon waxal la jenn jigéen ju jëkkëram ju jëkk ja doon wax ni ko ca ca waxtu sayf wa nga sàggane woon soow mi kon waroo jekki ba nëga ni dikk deeti ko fi wut si ndax dañoo fase dañoo tàggoo woon ah su ko defee képp ku bàyyi dara fa mu ko yombe ba mu jafe ko mu di ko dabaatal arab ni ko ah as-sayfa dayyaati laban tashbihan li hadihi al xaal bi tilk xaalam bi la ñu niraleeg xaal bale moo tax ku àbb dara nag doo ko doo ko kii léegi bi nga àbbee baatu asad jox ko rajulu shujaa dootoo ko soppi danga daan ra'aytu asadan yarmi gis naa gaynde gu mën a fet maanaa jàmbaar waaye lafdu asad ba soo ko soppee dootu doon mustaar te kon wax ja dootul doon noonu moo tax mu ni fa huwa moom yu daahil masala dafa niroog masal waxu la ni masal la kat dafa la ni rek dañuy niroo ni nga xamee ni masal kenn du ko soppi sayfa dayaati labana kenn du ko soppi ngir ni mbooloo laay waxal tey dama naan dayaatumul laba déedéet kon it xabaza wa ma siwa zarfa bi xabba aw fajur bil baa wa doona ba wa doona za ndimaamul xaakafi xabba nag man nga koo wutal faa'il bu dul xabba waaye bu boobaa man nga koo raj rafa xabba rajulu zaydun dégg nga wala nga jar koog baa xubba bir rajuli zaydun mu mel ni ki tey na nga ko daan jare ci af'il bihi rek genn siqa taajib xubba bir rajuli zaydun wala xubba rajulu zaydun bu dee saa bu la neexee rafa bu dul saa daal rafaal mbaa nga jarak baa wa ma siwa zarfa irfa rafaal ma siwa za fail budul za bi xabba ci xabba dégg nga nga ni xabba rajulu zaydu aw fa jurra bil baa ba faagi zayda la nag wala nga jar ko ak baa aw jurrahu bil baa i nga ni xubba bir rajuli zaydu mu ni nag wandimaamul xaar damm xaawu xabba kasura bare na doona za mbir mu muy ñàkk ànd ak saa su fekkee beneen fail nga ko wutal budul saa bare na lu ñu koy dàmm néew na lu ñu koy fataa man nga ni amaa jekki naan xubba bir rajuli moo moo gën a moo gën a bare wala xubba rajulu amaa xabba rajulu zaydun wala kooku barewut fa qul tuqtuluha ankumu bi misaajiha wa xubba biha maqtulatan xiina tuqtalu sàngara lay wax ruya bil wajhi fa qultu ma ni uqtuluha jaxase leen koog ndox xam nga ni jàngeen ci maqaama qatlu qatlu misli ya saaxi masjul mudaami laysa bi qatli bi lahzamin aw xusaami qatlu alxamri masjuha bilmaai ndax li annaha tak li anna almaa yaksiru sawrata alxamr fa qultu uqtuluha jaxase leen ko ndox uqtuluha ankum rey leen ko walis leen bi misaajiha ci jaxase ko wa xubba biha maanaam ay ma ahabaha ilaya xaala kawniha maqtulatan mamsujatan bilmaai wa duna dan dimaamu alxaakati afalu tafdil afalu tafdil maanaam feel boo xam ne maanaam afalu sifa boobu ñu tëgg ci baatu sulaasi te itam dana la wax ay sartam te du ko baamtuwaat mooy yamu la waxoon ci ma afalahu su dee afil bihi it maanaam afalu tafdil feel ja ñu daan tëgg ma afalahu ak afil bihi moom la ñuy tëgg ma saydun afalu min kada la yoo la yooyab doon bañ moom la kii di bañ moom la la ni suq min masuuqin min li taajubi afdala li tafdili wa aba ladu bi suq tëggal min fiilin ci fiil masuuqin ba ñu daan tëgg minhu ci moom afala li taajub ba ñu daan tëgg afala pour taajub booba ngay tëgg afalu pour tafdil li tafdil wa ba bañal fii alladi la nga xam ne ubiya bañ nañu ko foofa ca bunt booba fiil bu mu la noon su ëppee sulaasi yi bu ko ca def buñ ko dàqee bu ñu ko def bu dee fiilu mabni lil majhul bu ko ca def ba mu jeex bu dee fiil buy tegtale lawnu nga xam ne sifaam afalu lay doon wala ayib niki aaraj bu ko ca fiyetam ñooyam foofu aywa su ko defee nag bu fekkee da nga laaj kon nan ngay def nag ci sa tafdil bu dee yooyu mun la na nga defoon na nga defoon ba mënoon a andi na mafalu ma afala ca ca fiyal ja ko gàntu def ko fii wama la nga xam ne wusila bihi jokkoo woon nañu ko pexe ma ñu jokkoo woon ilaa taajubin ba tëgg taajub ci fiyal bu sart ya matul te nu waxoon ko kooku ba tey sil jokkal bihi ila ila tafdil ila siqati tafdil su fekkee ni bayaad ak sawaat la nga ni ma ashadda bayaadahu wala ma ansaa bayaadahu wa ma ashadda sawaadahu wala nga wax beneen maanaa bu ko lu dëgg noonu ngay def bu noonu nga doon def su dee féet nga ni kon danga war ni zaydun ashaddu sawaadan wala ashaddu bayaadan na nga daan def ma ashadda sawaadan kon nag na mu doonoon a shaad fa ñu jël ñaari fiil yooyu def ci afalu direct wala taajub direct mu doon shaad foofu féet shaad la fi boo ne hada aswadu min kada wala abyadu minhu mu nekk shaad ci tafdil ni nga xam ne boo noon ma aswadahu wala ma abyadahu mu nekk shaad foofu wa aba bañal fii la ubiyefoon wa ma bihi ila taajubin la ñu daan jokkoo jëm ci taajub dégg nga kooko sil bihi ila tafdil su ko defee nga ni zaydun ashaddu sawadan min amrin wala zaydun aqbahu arajan min amrin hakada wa afalu tafdili silhu abada taqdiran aw lafzan bi min in jurrida min alwal idafa afalu tafdil su fekkee ma ngi ala baabihi l asli nga di ca jublu ngañaayal kii moo gën a def ngañaay nag nan xamal ni kat jëmul ci ngëneel ni nu koy waxee afalu tafdil jëmul ci ngëneelu lu baax ak lu bon taxu koo dikk déedéet maanaam ma ñu jëm ka ca gën a foorle bu doon kub ak mbon la mbaa ak tuut la it ba tey noonu ni nga mën a waxee ci wolof lii moo gën a tuuti mbaa kii moo gën a bon kooko dutee af aluy tafdil lay tudd rekk di soo ne hada aqallu min hada wala hada adna min hada ba tey muy af alu tafdil kon tafdil ngëneel ji jëmul ci maanaam tegtale ni sifa bi ñuy joxe kii ci gën foorale kee rek muy bare muy tuut muy baax muy bon ak nu mu mën mel du tee ñu tudde ko tafdil daal silhu na nga ko jokk nag feeg tafdil gaa nga ca ne na nga ko jokk bi min ci min abadan faw mu jar mafdul ma akramu min amrin fokk ki ñu gën kii la min miy jar taq loolu nag faw na nga ko ca jokk benn lafzan wala taqdiran mu jiital taqdir benn taqdiran ni ki diw afdalu zaydun afdalu min amrin wa akbaru wa akbaru anam min ma nga cay jog xadaf nañu ko ndax mi dawli woon moo ko xam kon waaye yaa ngi ko fay nattale zaydun akramu min amrin wa akbaru aw laftan niki nga ni wa akbaru minhu loolu in jurrida suñu ko raflelee ci al ak idaafa su fekkee afalu tafdil amul alif ak laam laaful dara kon kon fokk na nga fa jokk min taqdiran lafdan ba taqdiran fokk ni ki misaal yi wa a'azzu seetal min ka ja anamu dikul dikul aywa su fekkee ni mujarrad la min alwal idafa na nga ko fa andi tax amma bu fekkee ni dafa ànd ak ak ni ki zaydun al afdal mooy ka gën kooku mën na bañ a doo ànd ak min al afdal wala mu laaf zaydun afdalu rajulin du dëgg wala zaydun afdalu rijaali su ko defee kon dootu ànd ak min wa in li mankuurin yudaf aw jurrida ulzima taw tazkiran wa an yuwaxada léegi nag su fekkee dafa laaf nakira moom afalu ulzima tazkiran wa tawxidan ay wa ifraadan niki zaydun akramu rajulin hind afdalu mraatin kon afdalu ngay wax dooni fudla fudla mraatin déedéet di ko jigéenal afdalu mraatin te kat afalu jigéenam ci tafdil fuala su fekkoon da nga ni xadijatu alkubra ma gën a mage mu annasu lakbar la kooku ci tafdil la dégg nga moom la ni wa in yudaf li mankuurin suñu ko laafalee lu ñu nakiraal ulsima tadkiran wa ifradan mooy mooy wa an yuwaxada jeemu wax fe te ñu def ko muy benn nga ni zaydun akramu rajulin wa hindun akramu mraatin dégg nga aw jurrida wala ñu rafleel ko ci alag laafe yëpp nga ni zayd hind akbar ni ngay waxe zaydun akbar dañu koy tadkiral ba mu laafee nakira ak bi mu laaful dara di mujarrad yorul al ñooyam amma bu yoree al nag nga déglu ko mu ni la watil wa al tibqun bu fekkee dafa topp ci al kon day mutaabiqun la lil mawsuuf nga ni azaydaani al akramaani zaydoona al akramuuna kon loolu nga wax hindaatu al fudlayaatu nee naa la nee naa la fudla mooy mu annasu afdal su dee mbooloo nga ni hindaatu al fudlayaatu wa tibqu al afalu ji topp ci al tibqun ay mutaabiqun la lil mawsuufi fi tadkir wa tanis wa furu fi l ifraadi wa tadkir wa furuucihima wa ma udifa li macrifatin wa ma li macrifa udifa du wajhayni an dima al nag afalu nag su fekkee dañ ko laafal macrifa ah kooku nag mu daal di dagan ifraad ifraadan wa tadkiran daganit mutaab an yakuna mutaabiqan lil mawsuuf soo ne zaydun akramu rijaali nga ni zaydaani dégg nga bu la neexee ne akramaar rijaali akramu rijaali wala akramaar rijaali wala zaydun wa amrun wa bakrun afaadilu afaadilu rijaali wala nga ni afdalu rijaali ba tey dégg nga ni ki ñuy waxe al ashaj maanaa wa naaqis afdala bani marwan al ashaj wa naaqis omar bnu abdul aziz ci mandoom radiallahu anhu ba ñu di ko yéegal ci xulafaa rachidina di ko ca ndax gannaaw xulafaa rachidin amirul muminin bu mel na moom ci seen siira seen mandu seen jub dafa amul ci ci bani marwan la bokk ci bani umayata la bokk ak ku ñuy wax naaqis walid ibnu abdilmalik wute naag ay doomi baayam yaag ñëpp moom itam ku maandu la woon banu marwan nag umara u bani marwan nag ci ci seen histoire amuñu ca woon ku ñu daan wasafe maandu te li ñu bare bare ku dul ñaar ñooñu ñu naan al ashajju wa naaqisu afdala bani marwan bani marwan maarifa la ndax mu daaf mu laaf alam la te kon nag ba mu laafee maarifa foofu nañu afdala bani marwan bu leen neexoon ñu ne afdalu bani marwana boole mu nekk mufrad nekk mudakkar wa tilwa al wa ma udifa li maarifatin moom zoo wajhaani su fekkoon ni dafa yor al te laaful dara xanaa taara noonu rek kon fokk day nekk mutaabiqan lil mawsuuf aywa bi mu laafee maarifa ñaari anam bi mu laafee nakira mbaa laaful dara moom kon lafzu muzakkar mu wakkat mooy ulzima tazkiran wan loolu mooy isticmaalaatu afalu tafdil hada lii nuy wax ci ni bu la neexee def ko ñaari anam kat ida nawayta maanaa min ndegam yaa ngi yéene nga neel gën a lante ga nekk fa maanaam min ma daan jar mafdul ndem yaa ngi ko fay taqdir lu dëgg ndiki da nga bëgg ni ñooñu ñooy ñi gën min ar rijaali sayd waa saydoona ñoo gën min ar rijaali su fekkee yooyo nga ci jëm kon bu la neexee muy ñaari anam afadilu rijaali wala afdalu rijaali amma su fekkee ne yéene woo ca min fa huwa mutaabiqun daiman azaydoona al afdaloona rek kon nga ci mën a wax jublu woon yi moo gën diw mii xanaa boroom ngëneel lañu rek ah kon nag da nga naan al afdaloona ni ka nga ko doon waxe ci beneen sifa budul tafdil du da nga ne ni nga koy waxe ci boo doon wax alkarim woona wala attawiloon hada ida nawayta maana min lii nu wax ni bu laafee maarifa borom ñaari anam la mooy kat ba nga ci ni yéenee maanaam gëneel gën a lan moo gën diw ba tey wa in lam tanwi soo ko yéeniwul bi an turida al wasfa bi maana sifa faqat fa huwa mutaabiqun lima qurina bihi tibqu ma bi tibqu bi maana mutaabiq wa in tilwi min mustafhima فلهما كن أبدا مقدما بتلو من سو أداة الاستفهام دفع يو صدر كلام خمغا بتخنا اسم الاستفهام دي يو صدر كلام فو نكي من مني بو وإن تكن سونك مستفهما دي أجي لاجي بتلو من تلا توب من سودي من اسم الاستفهام نكي من هو nga bëgg ni ko anta afdalu mim man min man kon man moomu nga xam ne ismul istifham la da doon yeewee sadru kalaam su dugg su ko min jaree kon moom du tee mu jiitu te day yóbbaale minam moomu kat nga ni mim man anta xayrun wa in takun soo nekkee mustafhiman di laajte bitil wi man ak lisim ja topp ci man min ndegem min mii di jar mafdul mafdul mi ismul istifham la da nga ni ko yaa gën min man kon na nga ni mim mim man anta xayrun kamis li mim man anta xayrun kan nga gën waaye doo ko ne anta xayrun mim man du dëgg xayru mooy afalu tafjil cosaan li axyaru charrun ak xayrun asluhuma axyaru wa acharru des na ko wax ba tey lu néew kasratul istimal moo tax ñu xadaf xam ndax diwa gën diwa yees dafa bari ci lamiñu doomu aadama woyofal te loo xam ne isticmaalam dafa bare day aajo taxfiif moo waral ñu naan xayrun axyaru ak acharru mimman anta xayrun wala da ixbaari ni taqdimu nazran wujida ba mu la nee nay dawlu ànd ak minam faw mu ne na ndaxam day wujida fekkeef na warada ñëw na taqdimu jiital ga nazran di lu tuuti tey daif dof daif ci listimaal tey qalil ci wujud nazru moom dafa boole qillatu maa dof dof wuteeg